ko ak tonk yi nga xam ni dina ci dina ci ànd ndax cas yooyu ma soulevé monsieur Diagne Madiambal ndax jàpp na ni ay cas yu yu waroon a taxaw xoolaat ko faram fàcce ko. jërëjëf Pape Ndeye maa ngi nuyu si téléspectateurs yi. bala ñu ci ñëw benn bataay. Euh, bu ci nekk jar na waxtaan bu ci nekk euh, war nañ cee. surtout eh, mën nañ ci am jàngat. Eh, bu ma sañoon wax loolu ba daf may jiital. boo ci jiital rek nu mën cee waxtaanee. waaye daal jàpp naa ni que bu nekk doy na waxtaan. jërëjëf Abdou Khadre. salaamaaleykum Pape Ngagne di nuyu Madiambal Diagne di nuyu Sénégal yi seetaan également di ndokkeel ñëpp ci at mu bees mi eh, waaye effectivement sujet yi ci nga tànn yëpp bu ci nekk rek doy na débat boppam. Mhm. parce que am na enjeux yu bari yu ci nekk am lu ñu mën a waxtaan lu ñu mën a seetlu. mais bu ci nekk dafa évoqué lu ñu droit maanaam lu yoon te droit dafa sew benn texte de droit benn article ni ñu koy interprété selon fi nga taxaw du bokk mhm. moo tax ay avocat am mhm. ndax benn cas de figure ñaari avocat yi ça dépend bokk nañ koy dégg nañ koy interprété du bokk donc ay divergence moom man du ci ñàkk xam naa d'accord jërëjëf ma jàmbal yow laataa li ñu lay xam ci euh, journalisme greffier nga woon ci tribunal li ñuy wax rabat d'arrêt nga xam ne tey ñu ngi koy xaar ci mbiru Khalifa Sall am ñu jàpp ni ci ñu déggee rabadaare nag mooy euh, bu ñu la àttee ci euh, cour suprême ba daan la say avocat mën nañ ko introduire te loolu am na ñu wax ni dafa suspensif maanaam bu ñu waxee suspensif mooy mën a àtte bi ba kenn du ko mën a jëfandikoo lan ngeen ci mën a wax ci wàll boobu. Euh, Pape rek mbirum yoon li nga ko indi xëy na liggéey naa greffier Soxna yaa ngi mu ci greffier rek mm-hmm. dafa nekk mbir ma nga xam ne ni tey gisee ni gisee ni wute na mm-hmm. bis bu yàlla sàkk nga gis professeur de droit ba nga xam ne ni que ku ñu ràññee la joxe xalaatam ci ni nii la gisee mbir mi keneen ni ko gisee wu ko doon laa bokk mm-hmm. waaye li wétoon mooy di am réew dafa am fu muy tënku moo ni que dañoo maa bokkoon ñun ñëpp ni que kat ñun ci naan xëy na dañoo farfarloo ki ñu a atte mooy ki nga xam ne ni que moom la askan wi jox baat ni ko yow yaa ñuy dogalal suñu tur muy yoon muy yoon tey mbir mi nga xam ne indi ko eh, muy candidature Khalifa Sall moo tax moo indi wax ya rabat dare eh, jëmbal nañ ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel mooy jàngat candidature yi nga xam ne jox nañ ko loi bi nga xam ne Sénégal tëral na ko dañu ku bëgg a def élection président de la république war ngaa sartoo wala war ngaa sàmmoonte ak lii moo di benn ci parrainage bi ñu wax war ngaa am lu parrainage bu toll nangam war ngaa doom kooka nga xam moom nga sa bopp ci mbirum yoon euh, teguñu la gan daan ba nga xam ne dina la gàllankoor pour mën a nekk candidat ñu ni ngaa a jël caution bu toll nangam euh, mën war ngaa mën a nekk nga xam ne doomi Sénégal nga ci réew mi nga dëkk am nga nangami at. miis mm-hmm. nga nangami at. te amoo beneen nationalité bu dul bu Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. loolu lépp sa sart yi nga xam ne dañ tëral. Mm-hmm. ni kon kuy def élection ci foofu ngay jaar. nag sart yi bu ko tëralee ki war a am dogal mooy conseil constitutionnel mooy def list candidat yi ñii ñoo war a bokk ci élection yi. kon dossier yëpp nga ca conseil constitutionnel. képp ku bëgg ñu taxaw nga di la daan bëgg jox la réew mi. d'accord sa dossier conseil constitutionnel. conseil moo ci war a mën a àddu. d'accord dogal ba conseil constitutionnel dogal nag. amul kenn ka xam ne mën nga cee def benn amuloo soo ko jooy feneen mhm. dogal ba lu mu daanu mu neex mu naqari mhm. da nga cay daanu mhm. gis nga damay fàttali yoo nga xamee ni que am na fi 2012 ci élection présidentielle 2012 euh, man bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo taxawoon xar seen tànk tubéy ni Ablaye Wade du fi nekk candidat euh, def naa ñu ci bari laa woon nañ leen ci ñu taxaw takk suñu ndigg ni que yoon may ko mu nekk candidat ñu xeex ko ba nga xam ne ni fukki doomu aadama doomu réew mi ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan mhm. réew Sénégal ñu dégg ko ci fitna ak euh, jolti jolti ja nga xam ne na fee am ba àddina bi yëpp xaw xawoon am njàqare wala tiitaange ci Sénégal d'accord ñu dem conseil constitutionnel dogal nii kat ñii ñooy nekk candidat te ba mu defee li ba la war bokk ca mu neex ñu naqare dañ koo nangu ànd moom ci élection Euh, dem élection yàlla dogal ñu gañe ko mu dem. d'accord mais grand man c' est que dégg naa la lu lu bëri lu wuti ak li ma la laaj nag wax dëgg li ma la laaj man dafa tënku ci rabatare mhm. parce que c' est important pour man mhm. dafa nekk ponk boo xam ne ci wàllu yoon mhm. dafa aju ci ëllëgu Khalifa Ababacar Sall euh, ci candidature am li nga wax kenn dindiwu ko mais ci rabat bi laa bu ñu taxaw ci lan la mën a jur ci ëllëgam non rabat bi man du ma euh, bu dee dama laaj ci rabat bi du mën a jur ci ëllëgam ok dinaa ci mën a tontu mais du a wax ba lu muy tekk xam nga moo tax. ok ma ne ko du ma spécialiste bi. Mhm. te aussi sama aw ma autorité pour wax ci. Mhm. mais waaye nag du tere mën nañoo jàngat lan mooy xew. Mhm. bu fekkee tribunal nee na. Hmm, xam nga rabattre sax bala nga wax la ko day fekk nga demande ko. tey fi mu toll ba jamono ji ñuy wax ni rabattre amagul. kenn demandé bu ko. xam nga Khalifa Sall lañ ko àtte tribunal régional. mu def appel dem cour d' appel. cour d' appel àttewaat ko. ba ko cour d' appel àttewaatee lañ ko teg. ay avocat euh, Khalifa Sall ak euh, moom ci boppam. Mm-hmm. ni que dañuy dem. Cour suprême cassation mm-hmm. ndaxte li ñu àtte du yoon. Mm-hmm. Cour suprême fan yële ci ginnaaw daal di dogal ni que ñu ko àttee noonu. noonu le cour d'appel waxoon dëggal. le cour d'appel dëggal euh, dëggal naa ko. le cour d'appel waxoon ak le tribunal régional waxaloon dëggal naa ko. léegi nag xali Khalifa Sall ak i avocat nii ñun dañuy delluwaat waxaat rabais arrêt boobu rabat d'arrêt mooy que nañ koo defee. xëy na dëppoowul ak ni ko yoon tërale mhm. kon dañuy wax ñu attewaat ko mhm. loolu demandé guñ ko bokk ci ñu toll nii mhm. ndaxte dégg naa ci presse bi parce que da ngay lire ni que ñoom jotaguñu arrêt cour de cassation bi euh, cour suprême bi pour mën a def attaqué ko ndax arrêt boo jotagul mënoo ko mënoo donc kon bu fekkee jot nañu arrêt ba attaqué ko euh, cour de cassation dina addu ci rabat d'arrêt boobu ba xam dina ko nangu am du ko nangu ah. bu fekkee cour de cassation nangu na ko ndax rabat d'arrêt boobu dina suspendre. voilà euh, euh, condamnation bi tax. loolu laay jàpp nañu njort nañu que. Uh-huh. Khalifa Sall dina def élection am def élection kooku euh, cour suprême wala conseil constitutionnel moo ko mën a apprécier mais du kenn moo ko mën a apprécier. Hmm. mën na ci am xalaat nag ah man xalaat bi ma si am. xalaat boobu rek laay laaj. xalaat bi ma si am. waaw moo di que sama gis-gisu bopp. waaw rabat dañu wax ni que mbirum procédure la. Mhm. ni xëy na procédure bi dañ ko doxalee du noonu moom nga demandé. Mhm. Hmm? nga ni kon nañ ma attewaat. waaw ramadare boobu ci ni nga xam ne loolu la ñu jàngoon démb ak barki dem bu fekkee nag njàng ma soppeekuwul. waaw amul lenn la nga xam ni que mën na koo dindi. ci attin bu njëkk bi. loolu leer na li nga wax dégg naa euh, loolu mooy li nga xamee ni que. tey euh, kon daal rabat dara nekkul suspensif maanaam mënul aj ci atte bi. encore une fois. ñu baamtuwaat ni waaw xam nga droit. dafa mhm. nekk lu sew la wala lu xarañ la. Mhm. gisin bi bokkul te ku nekk am na no euh, jurisprudence boobu mën a indi xay na bu jógee feneen ak bu ñëwee feneen. Mhm. kii àtte. la nga ko indil ci ay lay. indil ko ci jurisprudence indil ko ci expérience tegal ko ko. d'accord moom ci yàlla moo xam nga mën ngaa dikk sax àtte la nga xamee ni. ok dëppoowul ak yoon wala jubut. waaye yow loolu mooy yow miy àtte li nga gëm. d'accord kooku nag dina si dara. merci beaucoup Abdou Khadre. ci wàll woowu lan nga ci mën a indi ci rabat d'arrêt boobu. lan la mën a indi xam nga droit nee naa la matière à ah, interprétation la ku nekk mhm. fa nga féete donc avocat yi Khalifa Sall ñi ngi ne c'est substantif avocat yi ñi nga xam ñooy layal nguur gi wala ñi jege nguur gi ne euh, c'est pas suspensif maanaam du aj mbir mi. Mhm. li may proposer rek mooy ñu dellu ci li nga xam ñun suñu texte réew moom la wax parce que surtout bu ñu wax matière droit ñu lire li nga xam texte moom la ñu wax euh, bu fekkee ne dañuy xool euh, définition rabat rabat article 36 de la loi organique ni la définir euh, rabat d'arrêt ngeen baal ma nag ci français laa ko parce que ci tubaab lañu ko bind la mise en néant le rabat d'arrêt c'est la mise à néant par la juridiction de la décision qu'elle a rendue lorsque celle-ci est entachée d'une erreur manifeste résultant dans la procédure d'une défaillance de service et donc non imputable aux parties et affecté la décision rendue par le juge de cassation loolu loolu la ñu bind loolu la ñu définir euh, rabat d'arrêt maanaam anéantir neenal ab décision boo xam jëloon nañ ko parce que dafa am rëq-rëq ci biir mbir mi mm-hmm. am ku ko expliqué muy cour président cour euh, conseil constitutionnel pas cour mais conseil constitutionnel bi nga xam moo fi nekk ni di Abdourahmane Diouf moom gën naa xóotal yan kaa la ñu war a wax euh, li ñoo tuddee doctrine lan la ñu tuddee mm-hmm. rabat d'arrêt mu ñeent kaa la war a doon bu njëkk bi mooy en matière d'état des personnes maanaam mbirum sëy mbirum takk mbirum mm-hmm. succession ak yi demee noonu mooy en matière de vente immobilière njënd ak jaay. mbirum suuf ak kër. troisième bi mooy en matière de faux incident. Mhm. ñeenteel bi mooy bi nga xam ne en matière pénale. pénale ok sauf mhm. pour les condamnations civiles ou s'il a des dispositions légitives euh, législatives contraires. Mhm. mën nañu jàppale peut-être que kon bu Khalifa Sall bi ci biir lay dugg maanaam matière 4 bi. Euh, muy matière pénale bi. ci boobu lañ donc mën a entraîner un rabat d'arrêt fekkee ci li nga xam ne moom la Abdourahmane euh, Diouf mi nga xam mooy jiite conseil constitutionnel wax mën nañ jàpp donc rabat d'arrêt rek ci mën naa dugg ci définition yi lu tax mën ci dugg mooy ci ñaari article laay tënk rek bu njëkk bi mooy euh, article 52 de la loi organique bu 2017 mi mhm. nga xam ne moo tënk euh, euh, ci lay conseil constitutionnel bi tënku daf ne article daf ne la requête en rabat d'arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article 49 du dernier alinéa les dispositions des articles 32 à 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d'arrêt déposées par les parties. Mm cinquante article 50 daf ne article 30 30 36 bi plutôt daf ne euh, euh, article 49 bi nga xam ne disposition article 32 et bu fekkee article trent et, et, et 32 et ma nga ci biir. Mhm. parce que boo nee diggante 32 et 42 36 ma nga ci biir léegi fekkee dañu bëgg. def combinaison entre article 52 bu ak article 36 bi bi nga xam mooy wax matière matière 4 bi ma la tuddoon sànq. Mhm. mooy quatrième élément bi ñu joxe. bi concerné xalifa. voilà mhm. ak bu ñu ko boolee contenu euh, nga xam ne mooy préciser euh, li nga xam ne fa lañ fa diggante fa lañ tënk nit mën naa jàpp ne. Mhm. donc ci xal kaa xalifa rabaadara mën na faa nekk. ci sama xam-xam bu gàtt mais li ma wax rek nous on n'est pas on n'est pas des juges man duma mhm. juge duma avocat ma xam ne man la invité xam naa ne doo juge na waaw mais sa xalaat laay laaj te naw ko aussi ma ko jàngate man de mhm. bu fekk dama jël li suñu euh, saturé wax article 36 bi ak article 52 bi boo leen mhm. combiné war naa mën a permettre rabat d'arrêt bi nekk fi ba pare mën a suspendre mais nag comme li ma ma jëmbal wax sànq eggaguñ foofu parce que bu ñu duggee ba nga xam ne mooy euh, dans le fond actuellement nekkul ci fond parce que avocat Khalifa Sall yi recevoir gu notification. parce que juge bi bu àttee il faut mu bind la. notifié ko ko notification fekk jotagoo ko. doo mën a def dara amul donc voilà le juge a un mois weer la am pour notifier. Mhm. bu leen notifié ñi am nañ weer. également pour pour todd. d'accord beneen beneen élément bi nga xam ne tamit war nañ koo jàng ci dossier bu ñu demee ba ci fond bi. Mhm. mooy li ñuy wax par exemple euh, la la la. Euh, le làpp nu ñu ko wax ci wolof maanaam attekat yi ba atte dañoo war a tóol war ñoo mhm. nekk war ñoo nekk ñaar mhm. wala ñeent wala juróom-benn wala juróom-ñett mhm. donc foofu tamit sur le fond principe d'imparité bi xam naan bu nee ba ci biir ñoom danañ ko danañ ko jéem a jël pour nuilal atte bi parce que suñu saturé daf ne bu ñuy atte waruñoo tóol wala dañoo war a tóol au contraire waruñoo doon ñaar wala ñeent wala juróom-benn wala juróom-ñett il faut mu doon nombre impair ba nga xam ne décision ba ba ciy génn est collégiale mm-hmm. donc mu euh, principe d'imparité et et collégialité mm-hmm. avocat yi Khalifa ci ma liir ñoom nee nañ ba ñuy rendre décision ba mhm. juróom-benn juge ñoo fa nekkoon te dañoo waroon doon juróom-ñaar donc loolu ah, mën nañ koo dugal mhm. pour ni lañ fa àtte woon lépp ok mu nekk ay vice de forme yoon da ko yoon da koy saxal mais euh, loolu ça sur le fond mais loolu aussi mhm. euh, loolu aussi euh, il faut que ma am ci benn seede ba nga xam ne bu ndaw léeg-léeg aussi avocat yi bu ñuy prendre dossier daañ ci xer ba nga xam ne ni dañuy gëm seeni bët ci li nga xam ne dañ koy faral di dund mm.